parce que nit ñi dañuy bëgg a xam ñu dem bërki démb rencontrer Macky Sall cetera bon je veux pas mais vous avez besoin de savoir vous avez besoin de savoir je vous le pour savoir euh, je crois que xali euh, mëtul mëtul trois minutes suñu gisee ak Macky man ñii ñoo ma yónni Yewwi Askan Wi je suis le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi le maire Barthélémy Diaz a écrit pour inviter le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi j'ai demandé l'autorisation de la conférence de Yewwi Askan Wi ñu ne ma demal toogal demal toogal ñu fa ma dem toog fa et comme cela se passe d'habitude le président de la République moom moo ko waroon a présider eh mais on s'est rencontré là-bas il a exprimé le désir de nous rencontrer ça n'a pas plus de trois minutes lañ fa wax mën naa leen ko wax c'est pas un secret c'est pas un secret Macky Sall dafa le ma eh, Habib mon grand a tu m'as laissé ma ne ko mbay président seetal yi lay wax yow kay yow yaa ma mais dafa ma tagg mu ne ma Habib tous les anciens du PDS yi génn yëpp ndax na fa Abdoulaye ñëw nañ ànd ak man ba mu des yow ma mënul am c'est pas possible par la suite laa ko ko Habib Sy nga xamoon c'est le même qui demeure Habib Sy rien n'a parce que on se man ak moom man ma jàpp ne man li ma xamee sama bopp parce que dama wax Ousmane Sonko Ousmane ne ma man ni ma la xamee di la approché di wax ak yow mais public bi xamee wuñ la noonu ba mën la wóolu noonu kon bu ñu gisee nga serré la main Macky Sall l'opinion publique a le droit d'interpréter <laughs> ma ne ko nag bon ça c'est vrai mais il faut que les gens comprennent que man su ma fanaanee ci laal ak Macky ñu yeewu ndékkidoo ensemble añandoo reer il faut pas changer mes convictions te xam na ko kan ngeen gis kan ngeen gis ci ministre Ablaye Wade yi nekkoon fii ànd ak moom 1974 ba léegi ku nekk dans l'opposition si ce n'est pas si ce n'est Habib Sy man donc du kenn du ñaar alors yooyu dama leen koy wax pour ngeen xam les jeunes et la presse pour bu ngeen wax ngeen xam il faut aller à la source pour pouvoir interpréter parce que comme ils l'ont dit Yewwi Askan Wi kenn mënu ko dé